xarit ci Mame Less Camara san Diop san Samba Diop ak Aliou Ndiaye Assane Gueye Rek Mari Faye Abdoulaye Lam mënuma lim monsieur le maire li tax ma ni damay wax daf maa fekk fu ma ma nekk mbedd mi mu jël ma jox ma rajo kenn kenn musuma gis benn centre de formation yéen ay jàngale yéen yi ndax da ngeen maa mos a jàngal kenn jàngalu ma ko moo ma jël jox ma ci rajo bi bi ma kaay wax animation dong moom ma fa yóbbu woon benn bis midi jot maa ko di la kat journal ba pare mu doon midi demi midi trente maam lees jël journal bi fekk ma ci biir rédaction bi ko ma ko lii nag mën mu pas faire le journal en wolof ma ne ko mais man yi indiwuma fi mu ne ma kay yaa koy def yow yaa koy def ma jël journal bi fekk bi bàcc jox ko conducteur dem toog midi jot une jot ma ne asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu fii ci waxtu benn waxtu jot na ñu ñëw xibaar nii moo ma def muy présenté journal mais c'est Mame Less Camara dafay fekk kuy taxawaalu ci mbedd ci média dafay fekk ab gardien mu def la mutu rajo dafay fekk koo xamante ne nii du dara kenn xamu ko mu fexe ba ñëpp xam. bu doon ci wàllu yu may rëppal dama naan c'est le meilleur le meilleur vient de nous quitter Mame Less Camara yàlla na ko yàlla xaree